tey nag ñu ngi fii ci résidence Xaadimu Rasuul ñu fekk fi ak kenn ci njaboot gi nga xam ne dañu bokk ci comité bi nga xam ne ñoo ŋànk wàll gi yow communication ñi nga xam ne ñoo yoru wàllu googu ñoo lañ dajal foofu tey ñu ngi kenn ci njaboot gi muy sëñ Abdou Khadre Bousso tey nag li ñu bëggoon laaj sëñ Abdou Khadre mooy euh, relation bi sëñ Tuubaa amoon ak alxuraan fi mu ko bàyyi woon ak njaboot gi fi ñu ko indi loolu lañ bëggoon ñu defal ñu taarif ba mbokki taalibe yi nga xam ne maanaam ñooy seetaan télévision Thiès TV ak jant bi TV ñu mën a xam ban dayoo la ñu war a joxaat alxuraan mu bëgg ko téye xam suñu ñaareelu laaj it day nekk mu defal ñu taarif ci li nga xam ne maanaam mooy Serigne Touba màggal ak Serigne Touba mooy cantarak ak Serigne Touba nan la ko digalee ak taalibe bi nan la ci waroon taxawee. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyu bi ak ziyaara boobu saaxibul fadila Seex Muhammad li Muntaqa xafidahu llahu wa raxaa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko ak wér ba naal yure yi nga xam ne ki ni moom la sumb ci dum islam bi suñu borom tëbb ko kàttanam mu àggale ko ci sagoon te ñu ko ak moom waaye di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy siraan ci ñaari télévision yu mag yi di jant bi ak Thiès TV leen ziar ak leen ndokkeel fépp fu ñu ma nekk ci àdduna bi ci waxtu yu seer yu sell yi nga xam ne moom la ñu toll. ñuy kàddu gi nag ñu ko yëkkati ci turu Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci xam-xam ci dëkk bi ñu di ko euh, taxawee di ko saytu ci ci taxaw taxaw yu am solo yoo xam ne que nii euh, dana euh, dana baax. leen ndokkeel lu baax di sant bu baax na ci laaj bu am solo bi nga xam ne moom nga ñuy laaj muy Cheikhul Xadim ak Alquran te daanaka rek tont bu gàtt mooy ko xam Cheikhul Xadim mooy Alquran ko wax Cheikhul Xadim wax Alquran ndax léppam da koo jox jël da koo jël jox ko Alquran dundam gépp da ko euh, wéy ci Alquran dooni sëkk seeta ci baytam yu siiw yooyu nga xam ne moom la daan way te mooy yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa kunta qablu tabibi te béy yooyu ba mu koy wax di ko way da daan jël ay li gën a seer ci alalam lu mel ni que ay lalam da daan defarlu ay lal yu seer ku mel ni ki sëñ Cheikh Fattaku Diop daane ko defarlu ay lal lal yu gànjaru lal yu seer waaye su ko mësaan def ba mu ñëw da ko daan jël di ko dugal ci biir néegam daawu ci tëdd ndax ku ko xam xamuloo ne moom amu jutu tëdd wala amu jot a tëdd ci ay lal nooy waaye da daan jël alquran ja teg ko ci rangal ko moom jekk di ko ca di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko xëpp ay parfum dañ ko woy bay di seel yooyu nga xam ne que ni moom lañ jàng léegi waaye itam noonu la ko fonkee woon ci dundam gi lépp bëgg gi ko bëggoon taxoon na non seulement lim ci way ndax moo wax ne yàlla moo ko moom loo alquran te loolu nag euh, feeñ na ci ci ay ci ay bindam feeñ ci ay jëfam waaye itam feeñ ci mag ñi nga xam ne que ni ñoom la defar nañ te ñu ànd ak moom waaye tam benn sikk rek tolloo na ci jëmmi jamono eh, ñu bëree bëri buñ bëggoon a am luñ compteloo ci wër wërsëg baa loo xam ne ki ni xëy na lu ñuy eh, yóbbu sa kër ga la dañuy bind alquran ñëw jox ko mu leen di teral ca loolee teraanga yoo xam ne que ni kenn du xam nam toll te loolu bëggam alquran ak tegoon fu mu tegoon alquran fu kawe soppan gi mu soppan alquran moom moo ko ko waraloon te soppi gi mu sopp alquran itam taxoon na mboolem fu mu ma di nekk daan tànn ay mag tànn ay mag yu yu yu yu rafet loxo ñu di ko bindal alquran loolu xamoon na ci ay équipe yoo xam ne que ni ñu bëree bari ci ay mag ñu suñu Mor Mbàkke ak ñeneen ñu bëree ñoo xam ne sëriñ bi da leen tànnoon ñu di ko bind nga xam ne ñoom fit bind wu kese kese lañuy la ñuy ferewoo yenn saa yi ñu bind ko ci eh, diir bu gàtt wala ci ay guddi yu néew eh, ak ñoo xam ne dañu féetewu di ko jàng daara kaamil yi nga xam ne que nii fu mu a nekk ci lañ ko da koy formé moo xam njaareem ba ci fii ci Touba ba ci sax ba mu nekk gànnaar nga xam ne mi ngi woon ci ay loxo waaye teewul la muy xat xat xat lu mu mas a nekk ci ay loxo teewul am na équipe boo xam ne chaque jour ñoom ñuy féetewoo di jàng alquran te loolu liggéey boobu noonu ak euh, yitte jooju ba léegi njaboot gi ñu ngi koy ñu ngi koy wéyal kon sëriñ Seexul Xadim ak alquran moom day mel ne day euh, mutalaasim yi day mel ne maanaam ñoo xam ne daal foo fekk rek ñoom ñoo taxaw ndax mënu tudd benn yoon alquran Seexul euh, Xadim te tudd alquran noonu la ci yaroon mag ñi noonu la ci yarawoon njaboot gi ba ni nga ko waxee sànq ci ci njaboot gi itam taxawaay yu mel noonu lañ am ci dundal ko ndax xam nga ne naka jëkk Seexul na ay daara yu mu sosoon wala bokk ñu joxe woon ndigal ñu sanc ko ci diirib bi mu fi nekk lu eh, yoo xam ne que ne ci daara yooyu lañ soqe ko lu mel ne daara Sëñ Bamba Sëñ Maba Ndiaye lu mu xam ne yu mag a mag eh, moo leen moo leen sancoon wala bokk moo leen joxe ndigal leen te daal di soñ nag daan soññ nag njaboot gi ñu jàng alquran ndax daana wax ne e, am xale bu toll ci jàng alquran mën a mokkal alquran ñu sàggane ko ba e, ba wattuwu ko loolu gàcc jëru ko wala boog dara àdduna jërul loolu kon loolu mu ne ko soññi bu bu bu bu bu wër bu rëy boo xam ne daana tax ñëpp gën a xiir ci alquran te loolu li ko yóbbu woon mooy bëgg gi mu bëggoon alquran ak sopp gi mu soppoon alquran ak fonkoon gam te noonu itam la ci njaboot gi nag taxawee ci ginnaawam ci ay xalifam ay doom ba ci ñim yar ak ñim ñim ñi topp seen ginnaaw ñoom ñëpp koo ci gis mi ngi sañ ci ay daara di yor fa mana a ëpp seen seen li eh, ñu njëkk taxawal ci jéego moom mooy sanc dara sanc dara moom daa nekk farata la ci ñoom daal ci ci ci ci ci ci ci ci njaboot gi nga xam ñoom la yar eh, farata la ci nag ñoom ba ci koo ci gis lu mu néew néew néew néew la muy njëkk njëkk def ci la muy njëkk taxawal mooy daara ñu jàngal alquran te loolu dénkaan la boo xam ne cheikhul Xadim moo ko moo ko moo ko moo ko dénkoon njaboot gi ñu di ko taxawee ba fii mu toll ay daara yu daara yu mag yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci dëkk bi waaye itam di boole jàng alquran jàng xam-xam ak di ko tarbiya waaye itam yëmu ñoon ci biir dëkk bay di ko sos ci fi nga xam ne que ni moom mooy dëkk yi environ Touba ak yeneen dëkk yi leen sëñ bi jox ndigal ñu joxe itam ñu ci tudd ay domaine Daaru Muxti bu mel ni ki yeneen dëkk yu bëree bëri yoo xam ne que ni yëpp sëñ bi da ko da ay daara ba ci Touba gi nag sax Touba gi nag pour pour jàng alquran ak jàng mu yàlla ak euh, euh, li tarbiya wu moo tax mu sañ du woon du woon kër gu ñuy sànc pour du fa dëkkee waaye pour jaamu yàlla ak dund dund alquran ak di fa jàngal alquran comme ni koy jàngee ci yeneen bayt yi moo nekk ci biir man la bul fausé ni moom moo moo taxoon ñu moom moo sañ ko kon daal sañ bi cib nag alquran la woon juy dox suñu yaay Aïsa waxoon ci sallallahu alayhi wa sallam moom jikkoom moo nekkoon alquran ju dox la dañuy wax ne la euh, ci sëñ Tuubaa ndax moom sopp gëm sopp sallallahu alayhi wa sallam ak sopp gëm sopp alquran ñaari la daal mooy mooy mooy mooy mbiram maanaam ah, ñaari rek rek ci la Seexul Xadim jéem woon ay mbiram te itam ci la daan soññee ci la daan woote waaye itam ci la daan dénk mbooleem lu muy dénk ndax mboolem ñi wax na ay yoon yoon ne képp ko aju ci man nay saxal di jàng alquran waaw di ko saxal di ko jàng nga xam ne wax na sax ci masal bi naan ne lu mu néew néew koo xam ne ki ni mën na jàng alquran lu mu néew néew néew nay jàng par jour bu nekk ñetti ñetti isib lu mu ñàkk ñàkk yitte lu mu xat xat xat ba ci it na fexe ba jàng ñetti ñetti isib par jour nga xam kon <clears throat> nga xam ne ko loolu yitte ju rëy la joo xam ne ki ne sëriñ bi amoon na ko ci alquran daa ko soññee daa ko dénkaan itam te itam ci la njaboot gi nekk nag ba tey ba fi nga xam ne ki ne moom mooy fi ñu toll ci màggal gi waxtu bu nekk ñu ngi jàng alquran ba daari kaamil ji boo ci ñëwee chaque mbooleem daara yi Seexul Xadim am yëpp chaque jour juróom eh, ñeenti kaamil chaque jour ñu wàcc fa ñeenti kaamil lolu dara yi am yëpp ci juma yi mu démé ci daara kaamil ji liggéey bobu ñu ko fé wël batay ji fi ñu wax ñu ni nii kon daal Seexul Xadim daa nekk léppam alquran la woon amul moy trésoram bi nga xamni ne ni mom moy mom moy mom moy moy bi gëna sori ci mom comme ni ko waxé kanzil kitabul hadith wala wala hadab wal adab la jam xa wala jamha wala jamha zahab mu ne kon trésor bi gëna fort ci mom moy alquran fofu le ko tégon mom cheikhul khadim jërëjëf xam naa waxtu julli mu ñuy dab waaye xam naa ni kaddu gu mujj gi rek ndax moom naa ñu demaat tuuti waaye comme que ndodd nañu moom daanaka dañ daal am tënk rek incha allahu rabbi kaddu gu mujj gi rek nga looy dénkaane euh, jërëjëf waaw koy <laughs> ñu leen sant bu baax a baax kon rek dénkaan yi moom mooy ñu xam ne ñun Sénégal dañu yàlla dénk ci ay mag ñu baax ñoo xam ne dañoo teggi seen bakkan tege ne ngir lislaam tasaaroo fi ngir lislaam ju wér tasaaroo fi mag ñooñu nañ leen gën a fonkat bu baax a baax a baax te leen gën a jàngat nag xam leen waaw gën a gën leen a jàngat dund leen xam leen te loolu ndax bokk na ci yitte yi yi nga xam nga ñoom amee woon nañ ko moom mooy ñu dund islam ju wér dund islam ju loo xam ne que ni dara lu bokkut ak moom du ci nekk kon ñi ngi sant bu baax a baax di ñaan euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo ci màggal gi ñu dund nag Sëriñ Tuubaa dund ko dund ko man a bu waxuma ñu ñu berne leen ñu ñu ñu ñu ñu def leen te rek def yëfi ndaw ko ndax waaye nag ñu dund sëñ bi a dund ko ci ruux ruux yéen te loolu yitte jooju moo taxoon Cheikh Salim Mbacké eh, joxoon ndigal Rawdu Rayaahiin ñu ñu berndeel gan ñi ci benn yu mel noonu mooy daara bi nga xam ne ki ni moom ngeen fekk si tey seen seen objectif seen seen objectif principal mooy loolu moy dundal gan ñi fexe ba gan ñi di dund ruhiyan manana ñu yek magal gi yek sëriñ bi léegi ne seen ruh gën na fe dajji ko gën na fe yokko ci diggante seen diggante seen borom loolu kon ñu ngi koy dénk bu baaxa baax di ñaan nak suñu borom defal ñu tawfeex ba bis bi ñu ag ci ak jàmm te dañuy seen gërëmal seen xoteel di ñaan alaykum wa rahmatullahi waaw jërë ngeen jëf wa télévision Thiès TV yéen ñi suivre seen télévision bi. Euh, li ñu leen waxoon ci màggal rek li leen lépp loo xam ni roote na fa ci kilifa yi nga xam ñi ngi teew ci bis bi rek incha allahu rabi dana leen ko jottali tey nag dañu ñëw fi daje day suñu bopp muy Serigne Dame Sakho ku ne xam na ko ci bokk ci njabootu euh, maam Ilimane Sakho ak ki nga xam ni mooy euh, Serigne Ousseynou Sakho ak sëñ ma dembaloo ñoom lañ dajal fii xam naa ni duñu ni lan moo tax ngeen teew fii ndax dañ xam ni seen kër ngeen ñëw ci seen bërëb ngeen ñëw waaye relation bi nga xam ne mag ñu toggoon nañ ko ci relation bi nga xam ne moo moo àllax boobu nga xam ne Cheikhul Khadim seqoon na ko ak ñi nga xam ne maanaam mooy njaboot gi fi teew yëpp mm-hmm. te yéen ngeen koy dundal loolee lañ bëgg ngeen defal ñu tuuti rek loo xam ne maanaam xamale njaboot gi nga xam ne maanaam ñu ngi ci ginnaaw mm-hmm. ñu gën a xamaat taxawaay bi nga xam ne tey ku gis sëñ Dame Sakho fii di njaboot Ilimane Sakho du ñu la tax sëñ Dame Sakho teew. auzu mbokki jullit yi mbokk lislaam bi ñu ngi leen di nuyu ci màggal gi nga xam ne yàlla dogal na daaw bi ñuy ñaan dañu waxoon ne yàlla ñu yàlla may ñu fekkee de ba déwén te ci diggante bi lu bëri xew na fi yàlla may nu fekkee déwén ñun nag dañu ñëw teewal fii njabootu kër Ilimaan Sakho ànd ak suñu mag jii di alxaaji Ousseynou Sakho xalifa bi Serigne Habib Sakho boole noog moom muy suñu mag mu jiite délégation bi ñu ñëw fi nag doon def émission fa daanaka télé yi ma jaar yëpp nag maa ngi door a jàll sama télé kër ndax ñii nag di Thiès TV ñu taxaw ak alxaaji Dieng si mii nga xam ne ñun xam nañu ko barki dem rek ci benn fanu safar kaddu ya ngeen farotal loolu mooy kaddu diine ñu ànd ak alxaaji ma dembaloo ñëw fii man ànd na ak Serigne Habib Sakho ñu dem ci Serigne Saliou loolu 2004 la woon keroog bi ñu ñëwee Serigne Saliou fala fekk sëñ Mamor Mbacke fa la fekkit Serigne Saliou Touré Serigne Saliou ne ko sëriñ Habib mu ne ko labbayka mu ne ko damaa bëgg rawdu riyaahin bi doomu daara yi bu nu ñëwatee bu ko nekk nekk sa néeg di fa toog du ñuy xamante nañuy daje fenn bu ngoon jotee ñu génn xam-xam bi ndax màggal gi xam-xam a ko waral keroog daf ne man mii maa leen waroon di berndeel man mii maa leen waroon di attaayal waaye nag sama wér mayuma ko ndax sedd bi daf ma jàpp waaye sëriñ euh, Saliou ture mii kat lu ma man mën na ko te lu mu xam-xam naa ko kon nag comme mënuma ko ci sama jëmm jox leen ko Saliou Touré moom bu ñëwatee mu ñëw di leen berndeel di leen ganale keroog motaar bi jox sëñ Saliou Touré ngir muy indi bernde yi sëñ Saliou Touré dafa ne du ma ànd ak motaar naay fenqoog nit ñi di daje ak nit ñi ci loolu laay daje ngërëmul sëñ Touba màggal gi nag Alaaji Dieng wax naa bërki dem man leen lu jiitu rangi dig rang borom rangi rek bokkal ci rangi wala nga maandu ci rangi dafa am bërki dem ku ne màggal gi dañ ko layal ma ko màggal gi du lu ñuy layal bu ngeen amee mag mu dugg ci dex gi waxuma bu ñu wax ñu lu ñuy magal. ñun ki am ci géej la dugg bi muy teg tànkam ci ndox mi dafa ne wa sixtu bi rabbil ars yow géej bato gaal ak ndox na nga xam ne li may def yàlla képp tax gaal gi départ mu ne assiru mahal abraaru hiina assiru wasanal odaani yonaaka assiru dem juróom-ñaari at yu teg juróom-ñaari weer yu teg ay fan laajut fu ngeen ma jëmee laajut fu ngeen ma jëmee dellu si waat ne wallaahu yansuru ni wal xalqu tabini fil barri wal bahri sa nafin bila daradin kooku waxut kaay leen màggal ma waxut kaay leen màggal sama wayjur waxul kaay leen màggal sama baay bu ko waxoon sax ñu màggal ko parce que li mu def jar na ko cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waroon naa tax ñun ñu màggal ko waaye waxul nañ ñëw màggal ko kon ñiy wax ne sëñ bamba dafa woote ngir ñu màggal ko nañu noppi sëñ bamba ak cant la woote sant googu nag man lam yaskuru naas lam yaskuru laa ku santul nit doo sant yàlla kon dañuy sant cheikhul xadim ci lii munu may bu ñu wàññeekoo nag sant yonent bi ndax moo ne innii ñu ne mu ne xadimu rasul xadim nag bokkul ak xaadim xadim journée continue la cheikh bamba du ku nuy bañ Cheikh Mat Bamba du ku nuy contre Cheikh Mat Bamba du ku nuy weddi lan la waxoon yaa maalikal mulki yaa man jalan hawaji irham jami alwara yaa haadan rada kon ñu ñëw ànd sunu mag alhaaji Ousseynou Sakho bokk ci njabootu Ilimane Sakho Serigne Habib Sakho yabal nu te Serigne Habib moomu nag ñëpp xam nañ digganteem ak kër Cheikh Mat Bamba ndax mun Mountakha wax na ko lu yàggut ma ànd ak moom am ku ko nuyu ne ko sant wa mu ne kii kenn du ko laaj sant wa kër Cheikhul Khadim kii mooy Habibou Sakho doomu Serigne Saliou la te nag ba jël na bërki démb lu yàggut salaatu tasbiya gi nga xam ne sunu baay alaaji ibrahima saaxo moo ko sosoon tudde ko sëriñ abdul karim mbàkke borom makaarim al axlaaq ko xam sëriñ abib xam ne bu ne cëpp mook sëriñ moustapha alaaji baara waaye digganteem ak cheikh mansour diouf rafet na waaye digganteem nag ak sëriñ cheikh coro mbàkke moom sëriñ siidi maxtaar borom guy mind ñëpp xam nañ diggante boobu kon daal ñi ngi sant yàlla ci màggal gii tey wax ñiy wax noppi leen yéen a ngi wax këru diine yi waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu ah Thiès TV nag sunu télé la kon bu nu dajeeg yéen fii ci résidence Khadim Rasoul ñu dalal ñu fii ñun chambre 4 numéro 4 ñuy dal foofu ñun màggal gi ren kenn ëppale wuñu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye ci ndigalu sëriñ Ousseynou Sakho muy sunu mag ak alhaji ma dembaloo di bokk mu xadam bokk ci délégation bi kër alaaji Ibrahima Sakho waaye kër sëriñ Habib Sakho ñu sant ñëpp gërëm ñëpp alaaj Dieng si waaye ñu sant la sunu cantuk bopp ndax yow kat kilifa nga ci dëkk ba nu nekk bokk ci ñuy leeral mbindum cheikhul khadim waaye bokk ci kilifa ya wàññeekuwaat nag ñëw yor micro bi di dajeeg nit ñi di leen dékk micro te li ñuy wax ñun yaanu ko gën a xam gën ñu ko man kon loolu dinañ la ci sant gërëm la ci kàddu yooyu la ñu amoon jërë ngeen jëf ان شاء الله ginnaaw magal والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر سلام الذي في كل سائل وفي ظفر هماني ألا صلاة